السلام عليكم بوك انترنت نوي نلين زيارلين بو باخ باخ نيو نيو تي مات بو ساديو ماني سيو انترناسيونال سينيغالي يوزوري لا تي اكسترا اوردينير تي مات النصر اك كيغا خامتيني موي ال ساديو الى ايتي كونفوكي بار لو Euh, euh, donc ci ligue des champions Asie parce que deux matchs yu tegloo ci ligue des champions ligue des champions Asie bi nii kenn woowoonu ko mais tay nak li tax mu am sens ñu woko moy que ki nga xamante ni mooy Talisca dafa blessé donc Sadio Mané ñu woko ko. Euh, pour wax leen ba légui ni dafa melni course bi donc keesu Al Nasr bi dafa am ay jafé jafé ak Sadio Mané wala Sadio Mané daf ko neexul parce que euh, niveau bi nga xamante Sadio Mané mi ngi ci un jour bo xamante il a fait euh, des choses extraordinaires dans sa carrière donc on koy jéem a bañ ci Ligue des Champions Asie kooku franchement loolu du mais en tout cas aujourd'hui def match bu correct hein. match bi ñu bëggoon defu ko euh, jamono yi def vidéo bi nag Al Nasr dañ koo mënee 1 à 0 tiens